ministre de la santé et de l'action sociale maire de la commune de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dakar moo la Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dakar la soxla Abdoulaye Diouf Sarr la ñu bëgg nga ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg ca mairie Dakar jaraaf yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow saltige yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow notable yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow frère yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow ndey ji réew yi nekk Dakar ànd nañoo ak yow.

Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye yow ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar mouvement Abdoulaye Dakar moo ko soxla bare nañu jóg taxaw ànd ak yow lébu borom Dakaru lébu borom Dakaru président Macky Sall sant nala la gërëm na askan bi kontaan nañ si sa taxawaay ak sa liggéey lébu borom Dakaru Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye la ñu bëgg nga nekk Dakar.

ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr Dakar Dakar bu bees dañu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr mën na ko mën na ko Dakar bi ñu bëgg Diouf Sarr mën na ko xam naa ko xam naa ko Dakar bi ñu bëgg Diouf Sarr xam naa ko ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm doomu ñaay moom ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm doomu ñaay moom ëpp na mbërëm c'est le meilleur Diouf Sarr c'est le meilleur c'est le Dakar Dakar bu bees lañu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr Dakar Dakar bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr Dakar Dakar bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr Dakar Dakar bu bees la ñu bëgg dina am ndax ñoo ngi ak Diouf Sarr mën na ko. mën na ko Dakar bi ñu bëgg Diouf Sarr mën na ko xam naa ko au sujet euh, ma wax ne ñëw naa tey seet si Pape Seck maire HLM muy euh, koo xamante ne wan nañu tey que ne jubboo na ay population monsieur le maire maa ngi lay félicité li ma sentir tey mooy li ma sentir démb fële si euh, Padois mooy li ma sentir fële si donc Ngor li ma sentir Wakam moom laa sentir fii mooy population Dakar yàkkamti nañu gis un maire boo xamante ne day leen di indil lu bees un maire boo xamante ne daf leen di génn ci fitna un maire boo xamante ne liggéey pour les populations de Dakar loolu la ñu seetlu fii may wax ne HLM dëkk sama dëkk la parce que bokk naa ci les cadres de la SNHLM ñi xamante ne xam nañ bu baax nan la ñu structuré donc dëkk bi dëkk naa fi tam donc ci sama projet Dakar bu bees HLM li ko concerné daf ci bëri modernisation wu parcours sportif wu HLM bi mi ngi ci biir les terrains gazonnés synthétiques multifonctionnels ñu ngi ci biir mais aussi poste de santé ak centre de santé yi nekk HLM yëpp dañ fa nangu def liggéey bu am solo ba population HLM yi gis seen bopp les personnes du troisième age aussi mag ñi mag ñi aussi il faut ñu jàppale leen parce que HLM cité bu yàgg la ñu si bëri ñoo xamante ne am nañ leen fi kër yegg nañ léegi à la retraite il faut que ñu jàppale leen effectivement si ay projets yu mel nii le médecins de quartier ñu fekk leen seen kër yi leen assister au plan médical loolu yëpp ngi si suñu donc programme kon maa ngi leen di remercier leen encourager bu ngeen seetloo direction bi ñu jël ak ni ngeen gisee population yi ak engouement ñu ñëw si ñun seetlu ngeen ne ñu ngi dem vers la victoire au soir du 23 janvier 2022. jàpp ngeen ne yéen a fi gën a taxaw donte sax am na Dakar bu ñu bokk bu ñuy lancé tey programme la aussi. waaw dakaar euh, bu ñu bokk mën nañ ko mën nañ ko lancé mais yaakaar naa ne bilan lañ doon xaar parce que ñoom ñoo yor Dakar depuis 12 euh, ans. bilan day moo gënoon jekk programme parce que booy def programme di projeté wu da ngay xool déjà li nga fi def lan la parce que ñoom ñëpp dañoo am responsabilité bu am solo par rapport à ça donc xam naa population yi Dakar waay Dakar waay nañ leen wax loolu neen saway indi leen bilan balaa ngeen ñu indil projet euh, li ma bëgg a wax nag euh, mooy que en réalité ñun euh, suñu confiance vous le sentez d'ailleurs parce que yéen a ngi ñuy gunge depuis quatre jours xam ngeen ne li ñuy def ak pas yi posé de manière méthodique ñu ngi jëm vers vraiment un résultat boo xamante ne dakaar waaye ak Dakar Rose dañ ko gis pour que le maire de Dakar soit un maire qui amène un nouveau projet pour Dakar Dakar bi ñu bi xamante ne mooy Dakar bu bees bi population yi di xaar ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar. waaw mais un débat d'idées ñun ñu ngi ci débat d'idées boobu depuis boo gisee nu ñuy demee sax xam nga ne li ñu li ñu li ñu li ñuy demee expérience la ñuy demee euh, xam-xam la ñuy demee xam dëkk bi la ñuy demee. am projet la ñuy demee bon nag débat boobu yaakaar naa ne ñun amuñu problème au contraire laaj ko ji si kanam est-ce que ils sont prêts à cela mais ñun au plan intellectuel au plan vraiment de la méthode à tout point de vue on est prêt rien ne peut surprendre ñu ngi dem vers dakaar boo xamante ne population yi moom la ñu xaar pour que ñu indi leen beneen forme de gouvernance pour ñu indi leen beneen gëm-gëm si dëkk bi pour que ñu mën a jaamu seen soxla loolu la Dakar waaye ak Dakar di xaar mais xaaruñu effectivement loo xamante ne vraiment du leen yóbbu fenn mooy li ñu gis de 2009 à maintenant.